ah defe naa ni ah, yëg-yëg bi moom ah, du ñun kese ñoo ko ñoo ko yëg def naa ni yéen ñii fi taxaw bokk si nga xam ne moo di këru taskatu xibaar defe naa ni am na loolu yëg ñu yëgandoo ko moo tax ngeen ñëw fii donc yëg yoog yoogu jàpp nañu jàpp nañu ni wasaare na si bépp këru taskatu xibaar lañ ciy xaar man en tant que journaliste man en tant que euh, citoyen bokk si lépp li nga xam ne moo di kuréelu journaliste boo xam ne taxaw nañ ko fii si Sénégal euh, ma indi si ak président Sambou Biagi ñu tuddee pour l'entraide di euh, dimbalante di jàppalante di jëflante lépp li nga xam ne mooy technicien wax ma la journaliste même ba si technicien euh, donc euh, ak yeneen kuréel yoo xam ne bokk naa si te mu ëmb taskatu xibaar damay taxaw yëkkati sama kàddu ne nag jot na presse bi tam gën a manifester man si sama wàllu bopp man je parle à mon nom personnel laa wax wax ma ni dañ ma kaa yebal waaye presse bi gën a manifester soutien li nga xam ne moo dal groupe des médias parce que ku ne bokk ma charak def naa dafa fekk ni mbir dalu groupe sud communication nekk si euh, nguur Ablaye Wade ñu def interview boo xam ne Salif Sadio lañ ko jagleel gis ngeen lu ci xew dañoo ñëw nuitamment gare auto police jàpp journaliste jàpp technicien jàpp ba jàpp sax technicien de surface. donc loolu journaliste Sénégal yëpp euh, taxawoon def li nga xam ne moo di jàppale solidarité active. boo xam ne jàppale nañ ko groupe Sud Communication te gis nañu résultat yi buñ fi dóoree ay journaliste dañ fi teg benn kuréel goo xam ne dafa ba dafa ëmboon lépp li nga xam ne moo di journaliste ñu ñëw taxaw ak ñoom mooy kaawu ñoom euh, euh, euh, ñu ngi koy waxtee ça va revenir lee non ñu ñu fi dóoroon si si ay éléments bip defe naa ni dañoo leen taxaw Euh, journaliste yàgg na manifester ndax am na benn kër goo xam ne dal nañu ci kawam euh, euh, muy marche muy sit donc loolu yëpp ñu ñaawlu ko damay fàttali ñu ñoom ñoom mooy ñoom Kambel Dieng bu ñu leen dóoree ak yooyu donc damay jàpp ne rek lii bu dalee tamit benn groupe de presse damay jàpp ni effectivement presse bi ñu ngi may woo man ñu si bari samay mbokk journaliste góor ak jigéen. ñu may wooye fu ne bankaasoo si këru li yëglekaayu Sénégal gi yëpp nag daanaka mais damay jàpp ni rek ña fa jiitu jiite fa war ñoo gën a mën a def li nga xam ne di manifestation de soutien surtout que kii nga xam ne moom moom kër gi di Bougane Gueye dafa bokk si kuréel gi nga xam ne dafa ëmb lépp li nga xam ne mooy patron et éditeur de presse ñu koy wax CDEPS Mamoudou Ibra Kane jiite ko te moom itam tànkam euh, fréquent fii si kër gi par rapport ak li nga xam ne moo di yenn jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund donc nag loolu yëpp bu ñu ko boolee dëxañ ko ak ñi nga xam ne ñoo di taskatu xibaar nekk au véritablement au milieu et à la base justement de la pyramide ñoom ñëpp war nañu mën a taxaw parce que xeex bi ñoo ko bokk ay travailleurs ñoo fi nekk ay taskatu xibaar ñoo fi nekk amaana suba nit dina jóge feneen ñëw fi amaana suba nit dina jóge fi dem beneen kër kër taskatu xibaar muy wane rek la presse est une même famille et que lépp mooy yëg-yëg bi ngeen di wax seen njalbeen donc ñoo bokk lépp incha allah. est-ce que vous des manifestations de soutien au oui ah, ok alors manifestation de soutien ba ñun ñi dëkk nekk si kër gi di fi liggéey àla kulli aali euh, defe naa ni euh, lii dal groupe bi defe naa ni euh, lañ sa mën si xeex lañ sa mën ci wax lañ sa mën si si si si lépp luñ si mën daal defe naa ni ñu ngi koy wane de de te mosuñu see lajj donc loolu moom dafa nekk une une une vérité pure et absolue donc lañ see xaar kañ mooy ñay nekk si biti mooy askan wi nekk si biti mooy association yi la nekk ci biti mooy ñi nga xam ne am nañu nambal tànk ba ci biir ñi nga xam ne ñu ngi APR ba ci biir gouvernement ba ci biir assemblée nationale ba ci biir direction générale ba ci biir présidence de conseil d'administration yi def naa ñoom ñu ci bari aujourd'hui mbir mi naqari na leen xëy na nag place ba ñuy toog ak fa ñuy féetee du leen permettre ñu mën ko manifester publiquement waaye jàpp naa ne loolu kese nga yëg ko rek te ñoom ñu lay woo ñoom seen wàllu bopp ñu lay woo di la ko wax di manifester seen soutien damay jàpp ni effectivement aujourd'hui le président Macky Sall est au courant je bien du début à la fin de ce dossier moom moo ko war a àkki en tant que père de famille en tant que euh, véritablement euh, euh, kii nga xam ne moom la ñu jël na ko yow la ñu dénk lépp def naa ne mu def si lim si war te lim si war nag mooy renforcement des acquis démocratiques presque daf see joué lii nga xam ne moo di nu ñu koy waxee ne màggaayu démocratie Sénégal presque bi da see joué lii nga xam ne moo di liberté individuelle et collective yi liberté presque bi da see joué lii nga xam ne moo di démocratie participative et électorale presque bi da see on l'a vu en 2000 on l'a vu en 2012 donc presse ñu ko néewal doole dañ ko war gën a dooleel te defe naa ne moom si wàllu boppam il doit encore une fois jouer le rôle éminent de père de famille ba nga xam ne lii moo si génne des médias par rapport ak une prise de hauteur parce qu'en réalité c'est un rapport de gentleman agreement entre des gentlemen noon la war mën a doxe